الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ñu ngi sant yàlla suñu borom di borom xéewal yu bëri yi ñuy sotti suñu kaw di borom sutura yi nga xam ne dafa sa mbëkkal suñu kaw di seede ne amul kenn ku war a jaamu ci dëkk ci lu moom mooy borom kiimaan yi mu denc ci dund ak faar mooy borom kiimaan yi mu denc itam ci dekkal nit ñi ëllëg yow mal qiyaama ñoo ngi seede ne Muhammad jaamu yàlla la doom la moom la yàlla yónni ngir mu ferme yonent yi borom bi doon yebal moom la borom subhaanahu wa taala di jox ndigal mu am yawmal qiyaama ci taxawaay boobu nga xam ne ñëpp a koy gërëm ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi dégg ci mbokk di leen dégg ragal yàlla subhaanahu wa taala suñu borom nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ragal leen yàlla dëgg dëgg ragal te bu leen faat lu mu da ngeen ay jullit mbokk jullit yi bokk na ci musiba yu màgg yi nga xam ne tasaaroo na ci société bi lool muy bëri bu ñuy sos ak bëri bu ñuy tuumaal doomu aadama tuuma yoo xam ne su ko ay firnde su ko déglu itam ci ay lay yoo xam ne yu wér la loolu ubbi buntu fitna bu rëy ci jullit ñi buntu fitna bu rëy itam ci ñi nga xam ne ñooy eh, askan ndax mbokk yi jottalante ay waxtaan wala jottalante ay kàddu wala ay tuuma di ko tasaare ci société bi te amul ay firnde dafay tàngal xol doomu aadama yi di yàq seen i xel di yàq itam bokkoo bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dañ ko sant ñu ko waaye itam dafay indi ay musiba yu bëri bëri di yàq lu bëri bëri bi moo tax jaarul ci biir société boo xam ne société l'islam la ñuy tasaare rek ay tuuma yoo xam ne amul ay firnde tuuma jot naa rek lañ ko teg wala ci yaakaar naa lañ ko teg wala ci a gëstu loo xam ne kumpa la borom bi subhaanahu wa taala xamal la ko ay tuma yoo xam ne teguñu ko ci ay firnde ay tuma yoo xam ne teguñu ko te tasabut gi nga xam ne moom lañ borom subhaanahu wa taala sant ci lépp loo xam ne dañ koy saxal ci islam loolu indi ay yàqu-yàqu yu bëri ci loolu tax suñu yonente alayhi salaatu wasalaam tere ñu jikko bu ñaaw boobu daal di xamal ne suñu borom subhaanahu wa taala dafa sib ci ñun bëri sos bëri ay sos dafa sib ci ay sos dafa sib ci ñun itam ay laaj yu dafa sib ci ñun itam ñu sànq li xam ne mooy alal Ibnu Qayyim rahimahullah wax ne képp ku yitte woo xalaat safara yitte woo itam xalaat àjjana ndax da nga bokk wala doo ci bokk ndax da ko dugg wala doo ci dugg loolu la doy au lieu nga yitte woo ay sos wala nga yitte woo ay tuumaal tuuma yoo mbokk jullit or may deru doomu aadama lu màgg la ci lislaam bal dafa bokk ci juróom yi nga ne lislaam dafa ñëw ngir sàmm ko dafa bokk ci juróom yi nga xam ne lislaam dafa ñëw ngir ñoŋal ko moo tax lislaam mu may nit ki muy jalgati ak doomu aadama yooyu di teg ci daram bu ko soob di teg ci daram bu ko neex tegu ko fenn lu dul ci yëg-yëgu boppam tegu ko fenn lu dul ci ay sentiment boppam tegu ko fenn lu dul ci loo xam ne ay intérêt boppam rek yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wax ne kullul muslimi al muslimi xaraam bépp jullit araam na ci digganteeg ak moromam eh, deretam daganul ngay ko tuur araam na ci sa digganteeg sa mbokk jullit deram daganul ngay teg ci moom bu la neex araam na sa digganteeg sa mbokk jullit alalam daganul nga di ko lekk dund loo xam ne eh, àq la kon mbokk jullit képp ku muy bàyyi xel bis bi muy taxaw ci kanam borom bi subhaanahu war na sori jëpp sori tuumaal doomu aadama yi war na sori bépp sori bi nga xam ne dafay màgg diine doomu aadama dafay gaarale itam merum borom bi subhanahu wa taala suñu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ne képp koo xam ne dafa wax ci mbokku jullitam loo xam ne léppul ci moom di tuuma ci mu teg sa mbokku jullit suñu borom subhanahu wa taala dina ko dugal yow man ci yàlla dara dara dara ko xibaar xabaar ñu ne ko lan mooy dara ko xibaar xabaar mooy safara si ci dugal nit ñi fa ñuy dugal ñi nga xam ne ñooy jaarukat yi ak borom bàkkaar yu mag yi seen dëkk jaar seen ñaawi jëf yi ruus dex boobu muy muy composé foofu la ñuy dugal ñi nga xam ne dañuy tuumal doomu aadama yi ay tuuma yoo xam ne tegul ci ay tuuma yoo xam ne seen sentiment yi bokk ceeb la teg yonente bi alei salatu salaam yàlla jugal ñu laa biré ñu nañu ne gëm na yàlla ci yéen gëm yow man qiyaama bu mënee wax lu su ma noppee wax lu baax nag mu noppee a wax lu baax ci sa mbokk jullit boo a noppee wax lu baax ci sa mbokk jullit ak ki nga xam ne yéen bokk di dëkk nga noppi moo gën ci yow ngay wax leneen loo xam ne tëdd si ne musiba lay doon sa diine musiba lay doon itam mu lay xaar ëllëg yow man teel suñu borom subhanahu wa taala ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ab kàccoor bu leen indilee information bu leen ko gëm bu leen ko tasaare feeg wóorul leen feeg wóorul leen ba wóor na leen lii wér na wala déet te même bu wéroon itam ne leen lii information la boo ne bu la l'islam la nga bokk ci ñi nga xam ne dañ koy tasaare borom subhanahu wa taala nee na su ngeen di sukkandiku ci ay information yoo xam ne wér bu leen ko da ngeen di mujj rek mooy rëcc da ngeen di mujj mooy lii la ko mu war ne nii lay demee te bëri na ay tur yu ñu teg ci day doomu aadama yi mu yàq lu bëri bëri ci moom yàq lu bëri bëri ci jëflante diggante doomu aadama yi ñu dem ay fan ñu ne ah lii kat ay jortoon rek ñu jortoon wala dañu yaakaaru ni lii fekk na déedéet boobu loolu moo tax na xam yi wax ne bokk na ci mandargam bokk na ci mandargam xel mu matadi nit ki ñàkk di di dëgërlu ci information yi di nit ki bokk ci ñi nga xam ne dañ ko def dañ ko def point boo xam ne ci moom dañuy wala mu jot la ay tuuma ne da ko yóbbante ay bopp jullitam ñoo xam ne xëy set nañu wecc ci tuuma yooyu nga xam ne tuumaal la leen bokk na itam ci maanaam dese bokk na itam ci maanaam xamu manqué nit ki di wër ay information yoo xam ne wér di ko wëral boppam ngeen mën ko tasaare yàq ci dere doomu aadama yi wala yàqal ñi nga xam ne ñooy jullit mbokk jullit koo ne yitte woo na gëm yàlla ne yitte woo na ragal borom subhanahu wa taala koo xam ne yittewoo na defar boppam defar li nga xam ne mooy ayibu boppam yittewoo topp borom subhanahu wa taala dafa yittewoo dënk boppam ci fondement yi nga xam ne moom la lislaam sant diggante doomu aadama yi li nga ne araam na diggante boobu jullit nga araamal ko loo xam ne jaar na sa diggante boobu jullit nga taxawte te bokk na ci fondement yooyu atasabutu fi axbaar wal iraad an araadi naas nga fexe ba information bu yegg si ci yow nga vérifié ko comme leer bokk na itam fondement yooyu nga bàyyi nga ñoŋal li nga xam ne mooy dee doomu aadama yi sàmmal leen ko comme ni lislaam ñëwee ngir sàmm dee doomu loolu la ñu borom bi subhanahu wa taala sama borom bi dañoo tere ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne su information bi ñëwee ñoom dañuy bokk ci ñi koy yëlee dañuy bokk ci ñi koy tasaare te wóoru leen ndax lii am na wala déet borom bi subhanahu wa taala wax ne li jaar julit su déggee lu ñaaw ci lii daal di dëgg lépp sama mbokk jullit ko def ndax jullit dafay natt mbokk jullitam ci moom lépp loo xam ne war nga ko yombale sa bopp jëlal mabda ne dinaa ko yombale sama mbokk jullit man daal ba kara ay firnde yu leer naññi dafa sa kanam bi saxal ne dëgg-dëgg sa mbokk jullit bi wàcc na fi ko doon natt sa mbokk jullit bi wàcc na fi ko defoon dëgg-dëgg moo def li nga xam ne dañ ko ko mën su boobaa itam sa taxawaay du nga bokk ci ñi tasaare kumul sa taxawaay du xëy tasaare ñaawteef foofu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala nattoon na ko sa mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala dafa tëkku ñi nga xam ne dañu bëgg a tasaare ay ñaawteef dañu bëgg a tasaare ay ñaawteef inna alladina yuhibbuuna an tasia alfahisatu fi alladina amanu borom bi ne ñi nga xam ne dañu bëgg ñaawteef tasaaroo ci jullit ñi parce que l'islam principe am mooy lu baax la ñuy tasaare lu baax la ñuy siiwal lu baax dañuy ñasaare pour nit ñi gis ko nit ñi yëpp ko man ko topp ko man ko def ñaaw def rek nañ ko nëbb nëbbal nañ ko nëbbu mu yàq ci ki nga xam ne moo ko def ak ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon ak ña ko war a jaay ba mu war a dellu si waat ci ñun mu yem foofu rek bañ a tasaaroo nit ñi di ko gis bañ a tasaaroo nit ñi di ko dégg illa bi mooy ñaaw def bu tasaaroo ba nit ñi di ko dégg lu bëri wala nit ñi di ko gis lu bëri dafay mujj simple ci nit ñi dafay mujj woyof ci nit ñi ko tàmm woon sax wala nan moo ko war a def su ma yëngu da ko def ndax day ko saaro ak li ñu bëgg moo tax lislaam dañ ñaaw def tasaaro lislaam tëpp yi tam ñi nga xam ne dañu bëgg rek ñaaw def tasaaro ci ñi nga xam ne moom def ndegam nag suñu borom subhanahu wa taala dafa dëkk ñi bëgg ñaaw def tasaaro rek ci xeet bi borom bi tëpp leen bi azabi alimin fi dunya wal axira borom bi tëpp leen mu tar ci àdduna tëpp leen itam ci mbugal te dañu bëgg naka moom ñi nga xam ne ñooy dox ngir tasaare ñi naka nga xam ne ñooy toog fonde ñoo bi naka moom ñi nga xam ne ñooy toog ràbb aw sos boo xam ne soo ko déggee ne lii naka la ñu mën a ràbb jëm ci bopp jëri te amu ci voilà xeer boo xam ne mën na ko wante li dëgg ñooñu ko kenn xamul seen mujj ëllëg yawmal qiyaama ñoom la borom bi subhaanahu wa taala di jubbi ne walladi tawalla kibrahu minhum lahu adabun aziim koo xam ne nag yaa yenu yaayeelu fondement sos ñaaw te foofu ngir tasaare ko borom bi ne mbugal bu màgg lay xaar te loolu nga ne def na kon loolu jullit nañu sori ŋàññi day doomu aadama yi nañu sori jàpp diine yi doomu aadama yi nañu sori tuumaal maam tey doomu aadama yi lu dul ci dëkk lu dul ci firnde boo xam ne daf lay leer comme ni nga yaakaar ko ak jàll di gis mbokk acte yoo xam ne dëppuwul ci sababi sariya yu leer dëppuwul ci ay firnde yu fës dëppuwul ci ay lay yoo xam ne yu leer loolu ñaaw koy la ci islam musiba mu réer yi tam la ci islam euh, ay jeexitam ay effet tam kenn xamul ak mu ngi doon pour borom subhanahu wa taala te ki nga xam ne moo doon di tuumaal doomu aadama yi sosal doomu aadama yi di jam seen diin di jam seen naan di jam seen jëflante ak ñeneen ñoom ñu seetantaloon seen bopp fekk ci ay tuuma yëpp fuuf ci ñu tuuma seen bopp moo tax borom xam wax ne benn doomu aadama yi kàmb la ci kàmb safara ne kenn ku leen ñun mooy ko taxaw ci buntu kàmb safara ne kenn ku leen ñun mooy ko taxaw ci buntu kàmb safara nga bàyyi xel ne soo tuumaalee sa bopp jullit wala nga sosal sa bopp jullit sos boo xam ne amoon firnde sos boo xam ne saxul ci ci moom tuumaa nga jullit boo xam ne sa witti la nga teg ko tuuma koo xamante ni fii effet dafay continuer ak moom ko faaw effet yooyu nga ko tuumaal tuuma boobu nga ko tuumaal effet yi tuuma yooyu yi continuer ci kawam ko faaw bàkkaaru tuuma boobu nga yaram yow itam dafay continuer ak yow ko faaw kon nga ko ji du jàpp nga yëkkati sa laaj nga yëkkati sa bànq nga yëkkati sa effort ngir lan ngir rek teg sa bopp ji tuuma boo ne dina am loo ne dina koo yàqal diineem wala moom loo xam ne dina koo yàqal yàlla xew loolu moo mu bokk ci jëw ji gën a mag jëw ji nga xam ne ñu ëpp ay lor ëpp ay balaa ëpp mbugal ëllëg ñoom al qiyaama nit ku tudd ci laa ñam loo xam ne tuumaal ko bu yéene muslim te teg ko rek ci ay jaaxaan wala bàyyi ko boppam wala rek ci yëkkati ko xam ne daf koy teg wala mu teg ko rek ci ñaam jot na koo xam ne ñaam na ko ñaam na ko jox loolu mu génne ci laa ñam tasaaroo ci àdduna bi yëpp waa ak nit yëpp ànd di témoin di seede ba xam ñaam boo xam ñoo di nekk ñaaw ñoo ci kawam ba yomal xiyaam yaakaar itam mbokk ñu itam loo xam ne kenn xamul mu toll yàlla subhanahu wa taala moo tax kii def ñoom noonu na fàttali waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu yonent nee na kenn ci yéen dina wax kàddu boo xam ne du ci bàyyi xel sax dina wax kàddu boo xam ne du ci bàyyi xel rek du ci bàyyi xel sax yadribu bihaa baynana li yaf'ala maa bayna borom bi nee na ñu bàyyi sa solo nee na yàlla tàbbal ko ci safara su fóot soo xam ne fóotaayam weesu na sax diggante penk ak so mbokk jullit na nga bàyyi xel ne sa nopp bi yàlla dina la laaj ci dégg sa bët bi yàlla dina la laaj ci gis sa xel bi yàlla dina la laaj ci réew sa làmmiñ bi itam yàlla dina la laaj nga ciy wax sa yére yi nekk sa xol doomu aadama yi gis ñu ko waaye yàlla subhanahu wa taala gis ñu ko dina la li ngay def sa làmmiñ bu jëm sa bopp di leen borom subhanahu wa taala dina la ko ragal ëllëg wax dëgg wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna samaa wal basara wal fuaad kullu ulaika kaana anhu masuula borom bi nee na bul wax loo xam ne amu ci firnde bul wax loo xam ne amu ci firnde ndax sa nopp bi ak sa bët yi ak sa xel yëpp yàlla dina la laaj ëllëg wax dëgg ko kon nañu delluwaat tënk suñu bopp ci balaamu islam tënk suñu bopp. ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi xel ne yàlla moo xam lépp di nekk ci dënnu doomu aadama yi ak yu fay ci biir lépp borom bi subhaanahu wa taala al imam Ahmad rahimahullahu taala dafa wax ni gisuma kenn kuy tuumaal doomu aadama yi lu dul yàlla subhaanahu wa taala dina wàcce sa martaba seen kanam ndax yéene moom la borom bi subhaanahu wa taala dafay li nga yéene sa bopp jullit ñi mu ñu wàcc ñu bébbeeku ci kanam nit ñu wàcc sax ba ci kanam borom bi subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala xam ne te yeyoo loolu te kooku la borom bi subhanahu wa taala defee ki nga xam ne dafa boyal ki nga xam ne dafa boyal xëlimaam xëlimaam di bind làmmiñam di wax wax yoo xam ne amul ay firnde wax yoo xam ne ci sentiment yi boppam la ko teg na ngi bokk ci ñu na yëg ne ñu ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy toog te képp koo xam ne yaa ngi sa bokk na nga bàyyi xel ñaan ñaan yàlla bu dee ñaan yàlla ci wax boo xam ne yëngu ko sax ñaan yàlla boobu la ñaan yàlla tàbbi ci sa kaw ndax suñu yonent alayhi salaatu salaam moo ne ni ngeen moytu ñaan yàlla bu ñu toll ni ngeen moytu ñaan yàlla bu ñu toll ndax ku ñu toll ak ñaan diggante ak yàlla dara du ñu ñaan ko subhanahu wa taala na bàyyi xel itam déggaale suñu yonent alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dégg kenn ci saxaaba yi am si daal yi wala ya saxta wàcc naa la te yéen a salaam te la yem si biir kër te la gërëm sa ñaawteef yu bëri lay mel kenn ku ne ci ñun am na ci ay ñaawteef ak ayib yoo xam ne su ko doon càmbal ci lëmu du neew kenn ku ne ci ñun am na ci ay bàkkaar ak ayib yoo xam ne su ko doon càmbal su nga lëmu du tal di jënd ayib yi keneen kon mbokk yi na njëkkewoo suñu ayib boobu jubbanti ko na njëkkewoo suñu sikki boobu lijjanti ko moo gën ñu lijjanti sikki doomu aadama moo gën ñu lijjanti tuumal tuumal doomu aadama loo xam ne am lay ferre ñu def bàyyi ko Ibnu Saad dafa nekk li jëlee ci taabiin bii di Mutarrif ibn Abdullah ibn Saxiir euh, mu ne labistu fi fitna ibn Zubayr sab'a siniin euh, fitna Abdullah ibn Zubayr jëloon digganteem ak Malik ibn Marwan loolu événement la bu màgg ci histoire de l'islam nee na man dund naa ci juróom-ñaari at yoo xam ne musuma laaj kenn xibaar musuma informé kenn ci taxawu musuma laaj kenn xibaar lu xew lu xew ca mbooloo ibnu Zubayr lu xew ci mbooloo euh, Abdul Malik musuma ko laaj musuma ko laaj musuma informé kenn yi nag te loolu dëgg moom kon ndeket bi nga xam ne téye la boppam joxul kenn information ku ko bëgg indi information mu daw mucc naka moom bii wër moom di tasaare information naka moom nga xam ne mooy toog ràpp information wala mu fonde information mu jëm ci tuumal boobu kooku da ngay foofu alhamdulilah ay nañ xam ne di jéem a topp ay bi doomu aadama yi di jéem a xool seen i manque-manque loolu yu doole di yeer ñu loolu ñu yem ay bàkkaar rek ñoo koy def ñu juuyoo ak santaane borom bi subhanahu wa taala ñoo koy def ñu wàcc ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo koy def ndax doomu aadama ci ay bi doomu aadama yi su amoon xel wala mu bàyyi xel boppam dana yittewoo complété ay manque-manque dana yittewoo réparé ay système te kenn ku ci nekk yàlla dana mën ca bokk kenn. asalaamaaleykum rahmatullahi alayhi daan wax ne kenn ñoom dafa ne jot naa mbooloo bu bëree bëri ci mag bi baax yi rahmatullahi alayhi jàpp wuñu woon julli jaamu yàlla jàpp wuñu woon koor jaamu ay farata la yoo xam ne fokk nit ki doon nit ki def ko mu ne lañu jàpp woon jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg mooy lan al kafu an aadaati naas bàyyi leen doomu aadama bàyyi leen doomu aadama loolu lay jàppe woon jaamu yàlla définitivement loolu tax mu jaar ci xeetu islam bu ñu gisee ku wàcce laa bi ñam ci leen doomu aadama yi te yàlla subhanahu wa taala ak yonentam dégg ñu laa béere laa béere ngir yàlla laa béere ngir yonent yi laa béere ngir njiit laa béere ngir mboolem jullit ñi li jaar woon ci jullit mooy saa yu ñu déggee ku wàcce laa bi ñam bi tuumaal ay bopp jullitam ñu delloo ko ci bopp laaj yooyu ko yàlla subhanahu a taala képp tax tere ko ñaaw yi foofu nga xam ne bàkkaar la ñuy duubee musikoom société bi itam la ñuy loolu nga xam ne dàqale nit ñi lay jur soo xoolal da lay jur nii loolu ak ñaari lay jur diggante jullit bi xañ leen itam aw yu bëree bëri ndax am na lu ñu a jariñoo ci biir tuumaal ñu tuumaal ko te du loolu am na buntu jàppalante ak jëflante bu mënoon a dox diggante biir tuumaal ak ñu tuumaal ko yàq dara ba kenn dootul jëfandikoo moom ba kenn dootul waxante moom kon loolu ñaata la dugal société bi tey musiba ñaata la dugal société bi ay jafe-jafe. Euh, suñu nataal salaatu salaam nee na képp ku défendre deru doomu aadama képp ku défendre deru mbokku jullitam défendre boobu mu ko def moo koy yiir ëllëg yoo xam ne yàlla sa ci beneen bi waaye mu ne képp ku défendre mbokku jullitam défendre deru mbokku jullitam. yàlla subhaanahu wa taala dina la défendre ëllëg ci safara wa yàlla ñu borom subhaanahu wa taala defal yàlla ñu borom subhaanahu wa taala may sellal ci wax yàlla ñu may itam sellal ci jëf yàlla borom subhaanahu wa taala képp tax ñu jëf yàlla borom subhaanahu wa taala képp tax ñu jëf suñu borom subhaanahu wa taala nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm mooy leen yokk lu bëri ndax yokk lu bëri bàkkaar la borom bi nee na wala tajassasu bu leen di yëddulute yéen tamit nag ñu bëri dañu jàpp ne mooy yéem na sa bopp jullit waaye mooy jéem a am information ci sa bopp jullit li nga xamante sa bopp jullit sutural la su ko yàlla defal lu tax yàlla sutural sa bopp jullit ngay wax ngir par sutural yàlla ko borom subhanahu wa taala borom bi ne wala yaxtab ba'dukum ba'dan kenn ci yéen bu mu di jëw moromam di ko tuddal ay ñaaw te fu mu fekk ni ko ndax kenn nit yéen bëgg naa leen yàq moromam fekk dafa mel ñëpp na déedéet ragal leen yàlla ca xam ne ci borom bi subhanahu ngeen di dem yàlla ñu borom sàmm yàlla ñu borom teg yoonam ñu jubbi yàlla ñu borom boole ñu tënk seen bopp ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam اللهم اجعل حسنة التي لا تحل بذكرها انت ولي اللهم انا نسالك الهدى والتقى والمصاب والغنى ربنا اجعل حسنة تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت ولي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وجعلنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى اللهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوموا بصلاة الله